tey boo leen gisee tey ñu ngi nekk fii siège association ATL daam benn programme bu ñu waajal programme boo xam ne nii dafa jëm si wàll jàng njàng ak njàngale mu mel ni association bi depuis bi nga créé ba léegi depuis 2014 ba léegi ay programme dafa bokk si wàll jàng njàngale tey jii nag bi beneen xalaat bu gën a mag boobu noonu maanaam euh, indi li naan ay concours jàng ak njàngale si association bi jaaree ko si daara yi. ak tamit si école franco arabe yi bu fekkee daara ñoo programme si daara yi euh, concours tari alxuraan ñu naan ko récitation du Coran waaye tamit bu fekkee tamit si wàll école yi dañuy defal ñoom li naan génie en herbe maanaam concours jàng si euh, élève yi loolu moo ñu fi taxa ñëw tey programme boobu dañ ko jàpp incha allah le 18 avril maanaam suñ julee incha allah rabi euh, korité mu nekk alxamis wala ajuma ak ñu topp incha lañ koy amal suñu lancement journée lancement bi lañ koy amal fii si siège association bi muy programme boo xam ne dafay nekk chaque quinze jours dañ koy amal fii si siège association bi à partir de seize heures trente ñaan si nag ak euh, fukki daara yoo xam ne ñu si biir xayra waaye tamit euh, euh, juróom-ñetti école yoo xam ne ñu si biir xayra ndax programme bi moom waa xayra lañ ko jox ndax ñun dañoo nekk si koñ bi fii si xayra 2 di liggéeyal waa quartier bi di jàpp si côté bu nekk. moo tax tey bi ñu amee euh, idée boo xam ne dañ ko jëm si wàllu éducation ñun nañ ko jaarale si biir xayra yam la si école yi ak daara yi mais prochainement peut-être dina gën a yaatu mais daal jàpp leen daal li ñu tax a ñëw tey mooy benn programme dañ koy waajal fii si biir xayra muy nekk programme njàng ak jàngale di ko jaarale si daara yi ak si euh, école yi. programme bi nag nekk loo xamante ni lu noobu la ndax ci éducation lay wax xam naa volet sanitaire bi mi ngi ñëw. ndax ku wax commission pédagogique di nga laal éducation waaye bu waxee sanitaire tamit wàllu santé di ak science dina ñëw kon ci li nga xam ne mooy domaine éducation bi muy suñuy rakk yi nga xam ni ak suñuy doom nekk ci gox bi di jàng ñoo ñi nga xam ne ñoo neef féete leen mag moo xam élève yu leen yu nekk niveau supérieur lañ wala ay étudiants wala ñoo xam ne ay jàngalekat lañ dañuy dugg ci mbir mi ngir jàppale leen ndax seetlu bi Touba li ñu gis mooy franco arabe bi dañuy seetlu ni dafay xaw am jafe wala pour booy topp seen cursus euh, scolaire ba mu jeex day jafe dañuy am ay abandon am ñoo xam ne jàng ba si biir am i jafe-jafe donc ñun li nga xam ni moom lañ si mën a dimbalee rek mooy taxawal yu mel nii ngir dimbali leen ñu gën a mën a dëgëral seenu njàng mi nga xam jot nañ ko jàng waaye li nga xam ne manqué nañ ko ñu mën koo xam ngir bu école yi demee ba tëj ñuy tax ñuy ñuy def ay cours yoo xam ne ay cours de vacances la ngir ngir leen a dëgëral waaye mottali leen loo xam ne tàmbali nañ ko tamit ba euh, tëj fas yéen nañ ko wéyal ñu rafetluwaat beneen mbir bi muy ko c'est première fois ñu gis une commission pédagogique sanitaire ci biir association bi c'est innovation innovation bu am solo la ku wax nag jeune en herbe ci zone yu mel ni Touba li nga xam ne am na ay préalable maanaam ay laytaay yoo xam ne moom moo koy jiital si njëkk mooy faa nga bureau commission bu bu tegee xalaat bi événement bi da koy jël yóbbu ko bureau bureau exécutif waxtaan ci ak ñoom waaye yóbbu ko def benn AG avec tous les membres ngir ñu mën a valider événement pour mu mën a am gannaaw bi ko valider di nga dem def recensement des écoles. boo recensé école yi également di nga dajeek autorités yi nga xam ne ñoom ñoo jiite daara yooyu noonu ci biir recensement bi am nañ ci ay da ay école franco arabe ko wax na ko léegi ak yoo xam ne ay daara la ndax événement bi dafa am tarif alxuraan am programme français am programme arabe am culture générale donc moo tax ñu xool niveau yi nga xam ne dañ ci jote ci mbir mi yëpp ñu recensé leen gannaaw loolu commission bi daje na ak ñi nga xam ne ñooy njiit yooyu noonu ngir ñu mën a tënk mbir mi nan la mën a amee waaye tamit bu amee lan mooy nekk contenu bi mu li nga xam ne mooy nekk ci biir déroulement bi ba mën a egg cëppaan daw ko ndaw ko ci anam bu mucc ayib gannaaw bi loolu amee commission bi jàll na ci troisième point muy tabax li nga xam ne mooy épreuve nga xam ne moo war a doon déroulement euh, programme bi loolu nag nekkul lu yomb ndaxte commission bi tamit xam xam ne mois ramadan bi daf ci joué ñu ngi ci nekk daal ñu ngi ciy dox bu baax a baax a am nañ yaakaar ni bala ñoo jege événement bi danañ pare ba mën ko valider. beneen eh, bi ci des muy li nga xam ne daara yi la ñooñu tamit am na commission bu ñu sous commission boo xam ne ñoo séete wàllu alxuraan bi ñoom it ñu ngi ci def seen liggéey bu am solo ngir ndongo yi nga xam ne ñoo a tari ci a am li ci des rek moom mooy ñu xam ne programme bi tënk nañ ko tiré nañ ko ay exemplaires yu bëree bëri multiplier ko ñi ci war a jot danañ ci jot fi ñu ko war a afficher également dinañ ko afficher comme genre eh, eh, bataaxal ngir nit ñi mën a xam ne kañ la ak modalité yi nga xamante ni moom lañ teg ngir ngir programme man cee dox ba mën a am ci anam bu mu ci ayib. buñ ne euh, tarim alquran buñ ne Moussa bu saqaafi mu jeune àndara bu lépp jëm si xam-xam ñu yëg ni ki nga xamante ne si moom moo nekk Serigne Touba fii si koñ bi muy Serigne Bassirou Mbacké te euh, liggéey bi nga xamante ne si lañ nekk muy ATL. jàpp naa ni keroog buñ ko sosee bañ demee si moom wax ko ko la mu wax mooy jënd naa carte te boole naa si njaboot gi yëpp donc loolu noonu nga xamante ni te mu doon loo xamante ni à fois da koy gën di ndax bépp programme boo xamante ni si ATL am na ko dañu gis ni mu dugal si loxoom bu baax a baax a baax njabootam dugal si loxoom bu baax a baax a baax moo tax bis bi ñu gis ni a ah, dañ ko jël lépp dellowaat ko sëriñ Basiru Mbàkke moom lañ ko tuddee muy sëriñ Basiru Mbàkke mu sëriñ Modou Bousso Dieng ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool ànd ak wér waaye aussi njabootam gi nga xamante ne si duñ dañ mukk du ñuy jàppale si liggéey bu liggéey bi nga xamante ni moom lañ moom lañ sumb ndax ñoom xayra rek moo la ñor liggéey bi nag euh, comme niñ ko waxee léegi nekkul loo xamante ne si euh, lu ñu woyofal la ndax lépp lu mu laaj rek incha allahu taala def nañ ko ànd ko euh, comité bi nga xamante ne si moom moo koy saytu waaye ànd koog le président Xaadim ndax euh, yaakaar naa ne ñi nga xamante ne si mooy euh, dongo daara yi nga xam ne ñëpp si moom la ñu ngir mën a ñu mën leen identifier waaye ñi nga xam ne ñoo commission muy comité pédagogique bi ñoom it préparé ay bâche yoo xamante ne si ñoom si lañ leen di identifier même ñi nga xamante ne ñooy atte Euh, euh, musaabaxul quraana bi muy euh, tareem alquran ñoom ñëpp prépare nañ ay batch yoo xamante ne si si lañ leen di xàmmee ngir ngir rek liggéey bi nga a nekk liggéey boo xam mucc ayib la kon loolu jàpp naa ni nekk lu yomb loolu yàq jàpp naa ne ab xaalis moo ko def kon daal ñi ngi gën a lancé waat appel képp koo xamante ne si yaa ngi yaa ngi dégg kàddu gi te lu baax ñor la nga ñëw dugal sa loxo si liggéey bi te yaakaar naa ne ku si dugal sa loxo di nga ko dugal foo xamante ne si bu ëllëgee doo ko rëcc. wax sonn nag wax financement te yaakaar naa ATL bi mooy deuxième fois moo koy organisé kon peut-être bii di ñëw ak bi ak bi du bokk kon yaakaar naa ñu ngi si laaj financement yoo xam si ni ñu war a jëm si bis bi kon nag ñu ngi si ñaan di waa di di di laaj waa waa quartier bépp rek ñu ñëw jàpp si bis bi te xam ne sunu la boo xam si ni tamit képp koo xam ne da woo si diine rek yaakaar naa lu baax rek moo di moo di moo tax moo di si woo kon nag ñu ngi si woo bonne volontaire yi nekk si xaar yëpp di si woo responsable politicien yëpp. di si woo tamit képp koo xam si ni yaa ngi wéy ashadu an laa ilaaha illallaah wa ashadu anna muhammadan rasulullah kon yaakaar naa bis bi bis la boo xam si ni diina rek moo ko tax a jóg aate yàlla nag dina dina si def lépp loo xam si ni moom la am ndax yaakaar naa diine nekk loo xam si ni lu ndaw la si dëkk bi kon ñu ngi si woo ñëpp li nga xamante ni instant bi ñun mooy ci nekk suñu wàll te ñu nekk rôle boo xam ne ñu war ko jouer lépp loo xamante ni maanaam bis bi laaj na ko moo xam muy sonorisation moo xam muy sees moo xam muy bassan ak gamaat lépp loo xam ne bis bi laaj na rek ñi ngi ci jox ay jéego yu matam ñi ngi ci jox ay jéego yu am solo yoo xam ni buñ ci yeggee dara du manqué bu soob yàlla suñu borom lépp loo xam ne bis bi yàlla na ko laaj ko ci bis bi ñi jox ay jéego yu mu am solo ñi rek nga xamante ñoom lañ ko seexal quoi lépp loo xam ne na mën naa ne luy taral bis la wala loo xam ne suñ ko defee bis bi dina réussir incha allah rabi ñoo ci jox ah, liggéey bu am solo man nag damay soññ sama mbokku jigéen ci journée boobu parce que le jour juin mooy journée d'ouverture bi ñu bëggoon képp koo xamante ni yaa élève nga wala étudiant ak suñu maire mbootaay yi suñu yaay yi ñu ngi leen di ñaan jour boobu yéen ñëpp ngeen di jàpp si bés bi jàpp si programme bi parce que euh, programme bi ka nekkul ATL rek ñoo ko moom certes ñoom ñoo ko organiser mais dañ ko organiser pour jàppale élèves yi nga xam ne ñoo ngi fii si biir biir xayra kon nag képp kuy jigéen wala ngay étudiant wala ngay yaay si élèves yi war nga mën a teew si bis boobu jàpp si pour bis boobu ñu mën ko réussir. waaye tamit ñi nga xam ne tamit tamit ñu ngi si wàllu domaine santé bi ñu leen siy woo ndax santé ak éducation dañoo nekk ay seex lañ benn mu dem bàyyi moromam ndax am réew yaakaar naa bu santé bi doxee éducation bi dox réew mu day jag mais benn bu sooxee rek benn bi du mën a dem kon ñu si képp ko xam ne yaa ngi liggéey si wér-gu-yaram rawatina du mbokk rek li nga xam ne nii euh, di woo le président Bassirou moo xam ne moo jiite la des relais moom tamit ku ne xam ne tamit diggante association des relais ak euh, ATL la kon ñu leen si woo ñoom ñëpp ñu liggéey bi dugg seen loxo baax a baax waaye tamit euh, les responsables ko wax naa ko sànq responsable politique chef religieux yëpp ñu leen si woo baax a baax programme bi dañ ko tuddee nag Serigne Bassirou Mbacké secrétaire wax na ko sànq. muy koo xam ne nii bu ni ATL rek mën nañu wax ne moom mooy lépp ndax sa sa fondement bi moom la woon mooñu si ñaan loon tegal ñu si ay kàddu yoo xam ne nii boo léegi moom la ñuy eh, gis da mooy suñu dëgër laay kon programme bu mel ni amee jëm si wàllu diine suñu xel du xalaal keneen ku dul moom kon programme bi sëñ Bassirou Mbacké eh, xayra 2 lañ ko tuddee eh, moom sëñ Mourou Bousso Dieng moom sëñ Fallou kon yaakaar naa programme programme waa xayra la. kon képp kuy kilifa diina si si Touba rek yaakaar naa programme nga dugg sa loxo muy programme boo xam ne wax da wax naa ko sànq dafay nekk le 18 avril la ñuy def euh, cérémonie d'ouverture bi maanaam lancement bi lañ koy def di si woo ñëpp nag waaye nag chaque quinze jours dañ koy amal fii si association bi ñuy def euh, chaque journée bu nekk dañ am ñaari école yu yu yu ak tamit euh, benn séance de récitation coran pour wàllu daara yi kon nag bilan bi diis na lool. waaye jàpp nañ ni dinañ am lu ko ëpp parce que li koy defal jar na ko si wàllu arxaan la jëm si wàllu njàng njàng la jëm kon yaakaar naa ni bi li si e, séntu nii dina am lu kawel suñu njort ndax yaakaar naa ku dégg loolu rek da si dugal sa loxo ñun nag di si am benn objectif bu général bu ñu si am mooy que ni si wàllu daara yi dañoo bëgg e, bu ñu paree ki xam ne moo jël final ñu waajal ko. mu bokk si station courant yu mag bi ngay dégg si si euh, Sénégal muy waa siniko di ko organiser mu bokk si bu jugee foofu tamit euh, bu ko yàlla defalee xéwal tamit ñu mën ko waajal ama demaat si concours bi loolu mooy suñu objectif si wàllu daara bu dee si wàllu école tamit liñ bëgg mooy école bi ñi nga xam ne participé nañ képp xale boo xam ne bokk nga si rek donc fii deux ans trois ans ñu gis la si si dans les GCM yi ñëw nga nga nekk si ñu xam ne si réussir. loolu nag yaakaar naa soññe bi day nekk si général bi yi ngay waajal sa bopp objectif boobu daal lañ si am te incha allah ñu ngi ñaan suñu borom mu kàttanal ñu si doole Sëriñ Bassirou Mbacké mi nga xam ne mën na ko tuddee ba lépp loo xam ñu ngi ko si séntu rek ñu am si lu kaw suñu njortu ñun nag ñu ngi sant bu baax a baax li nga xam ne ñuy waa média yi di si baax a baax parce que euh, lii nii dafa nekk loo xam ne ñoom dañ si am pas de responsabilité kon képp yoon média rek ñu ngi lay woo si liggéey bii nii moo xam ne site internet les télé les télévisions yi euh, rajo yi ñëpp luñ si woo di si woo képp koo xam ne rek yaa yaa ngi nekk DG tamit euh, ñu ngi la si woo di woo tamit directeur école yi donc sëriñ daara yi fu waaye na nekk rek foo mën a féete rek ñu ngi lay woo si programme bis bu am solo bi nga xam ne nii association ATL moo ko amal fii si Touba Xayra di commencé incha allah le 18 avril bu ñu jullee Korité bis bi di lañ ko amal incha allah.